te loolu lépp pour jaramu jariñu askan ah moo tax mu ne dina def réforme boo xam ne incha allah bu gouvernement bi toogee ci bés yi njëkk loolu ah, dinañ ko jëppal liñ ci xalaat mu dénk ñu vraiment ñu conduire ko réforme boobu ba incha allah li nga xam ne nga xam ne premier ministre. Euh, échelon la boo xam ne ci ministre yi da leen di coordonné maanaam mooy euh, jawriñu euh, ministre yi président nag bëgg ne dafa bëgg vraiment bi yoon moom ci boppam mu tey leen ngay ba mu wóor ko ne li nga xam ne yéeneen bi mu am yépp ci réew mi incha allah yàlla dimbali ko ci mu matal ko moo taxit mu jox ma mu mu nome ma li nga xam ne moom la mooy ministre d'état secrétaire général de la présidence moo ci ciy inshallah buñu paré ci réforme bobu ah premier ministre euh, euh, dootul am ci réew mi ndax président de la république mom lañu ñu fal loolu nit ñi war nañ ko di fàttaliku toujours moom moo ki nga xamné mom rek le chapitre mi may muy définir yoon mi nga xamné ci le réew mi di dox. Euh, ñu koy feddali tam suñu disponibilité defe naa ne ci fan yi wala ci kanam saa yu ko neexee bu génnee gouvernement bi defe naa ne xale yi ak mag ñi nga xam ne ñoo koy jàppale ci réew mi defe naa ne ñoom ñëpp dinañ takku laxasaayu taxaw ci wetam insha allah li nga xam ne moom la ko réew mi dénk ah ñu liggéey pour que loolu insha allah yàlla def ko bu loolu passé yi am na lu décret di ki nga xam ne ministre secrétaire général de la présidence Maxime Jean Simon président de la république nommé au ministre secrétaire général du gouvernement merci